bokk te it xam naa mbaax gi na ci yow nabi ne ko Omar ndax xam nga ma mun ko xam naa la te it gëm naa ni yàllaa la yónni Seydina Muhammad ne ko Omar xamoo ma ndeysaan Omar xamoo ma xamoo ma ndeysaan si oh. Abdoulaye waaw am na koo xam ni buy wax ci yow mm-hmm. safaan dalaa xamul dalaa xamut dëgg la xam nga problème bi yëpp mooy réeri rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waa ji boo ko vérifié rek topp ko wallaahi am na ñu lànkoon ne duñ la ne ko duñ la bëgg mukk waaye bi nu ko vérifié dañ koo topp. moo leen gënal seen bopp. ndeysaan njool makk ni Omar kaay ma wax la may mhm. kan. ma xalaqa allahu taala nuur yi. wa an sayidna Omar radiyallahu anhu anna mawlaana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaala muqaatiban la yaa Omaru. ana. ndeysaan ana allazi xalaqa allahu qabla kulla shay'in nuur sallallahu alayhi wa sallam fa sajada lillahi fa baqiya fi sujudihi sab'a mi'ati aamin fa awalu kullu shay'in sajada lillahi nuuri wala faqra ni ko Omar la njëkk yàlla bind dara dara dara dara dara sama leer la yàlla bind man man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon présenté la kanay sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko Omar sama jëbi mhm. sëgg naa sujjóotal borom bi subhanahu wa taala juróom-ñaar téeméeri at si jiw ma la ilaha illallah moog yàlla rek. maag yàlla dong. mu ne ko Omar atadri man ana ndax xam nga may kan Omar na ko ba tey xamaguma la de. kon ki nga may présenté loo. Mhm. pour ma ko moom ma ngay présenté boppam. yonent bi présenté boppam. ba bi muy présenté boppam nee na puukare wuuma. ndeysaan tiitaru wuuma mais dama bëgg ngeen xam mu ne ko yaa Omar atadri man ana ndax xam nga ma Omar na ko déedéet mu ne ko ana allazi xalaqa allahu taala al arsha min nuuri wal kursiya min nuuri <laughs> wal lawxa min nuuri wal xalama min nuuri wa nuural absaara min nuuri wa nuural aqli allazi fi ruusil xalqi min nuuri wala faqra ni ko Omar aras ci sama leer la ko yàlla bind. sallallahu alayhi wa sallam kursi yu mooy siis ba yàllay toog nga xam ni yàlla ne na siis ba moo gën a yaatu asamaan juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar. tey boobu siis. allazi wasi'a kursiyyahu samaawaati wal ard ndeysaan moom moom sées ba moom sées ba ci sama leer la ko yàlla bind mu ni ko Omar alliwa lahul mahfuus ba yàllay bindee programme ya ci sama leer xalima ba yàllay bindee ci sama leer mu ni ko Omar mu kóllëre gi yàlla diggante gaa yi yonentu yi ci sama leer la ko yàlla bind mu ni ko Omar du caagin damay puuko réew mais dama bëgg ngeen xam may kan ngeen xam mu ni ko yaa Omar atadri man ana ndax xam nga mu ko déedéet mu ne ko ana lazi xalaxallaahu xabla kulla shay'in nuuri la njëkk yàlla bi dara dara maag yàlla dong ñu fi nekkoon sallallahu alayhi wa sallam ne ko du mais dama bëgg ngeen xam xam may kan kon moom présenté na boppam yéen présenté na boppam présentation ba kon avant dara di fi am mook yàlla dong ñoo fi nekkoon moom alayhi salaatu wasalaam kon looy digg looy xalaat ci leeru rasulullah sallallahu alayhi wa yàlla ci leeram la ko bindee mm-hmm. ci leeru siggina Muhammad ci la yàlla bind yii ma la wax mooy asamaan suuf aljana safara nit jinne malaayika siis ba yàllay toog aras lépp yàlla bind ci leeru siggina Muhammad wa sallam kon moom moo njëkk a présenté boppam moom sallallahu alayhi wa sallam ba ñu nekkee ci aalimul arwaax mooy fa ruux yi daje. booba yàpp ak jëmm amagul. amagul ndeysaan tey xamante gii ñu xamante nii. Hmm. foofu la xamante woon. waaw sa alimu arwaax. waaw ndakaaru gii di nga bokk ak nit benn immeuble du ngeen xamante. dëgg la. mooy xamante wu leen woon fële. xamante wu leen yàlla teg ruux yëpp mooy bi yàlla ñi ñi ñi ya li dalee ci mam aadama ba keroog yàlla lay wër buftu bi ku am ruux keroog yaa fa. kenn manqué wul. ca ndaje ma ca ndaje ma ñëpp a nga fa. la tàmbale ci aadama laa wax de maam sunu maam aadama ba keroog yàlla yi wul buftu bi. ñëpp jeex kenn manqué wul ñëpp nga fa luy dund am ruux yaa nga fa. yaa nga fa al arwaaxu junuudun mujannada. mujannada fa maa taarafa minha italaf. wa maa tanaakara minha ixtalaf wa minha itilaaful muridiina bil iraadati wal muhibbiina bil mahabbati wal mustaqiina bi shawqi wal aashiqiina bil ishqi wal mustanisiina bil unsi wal mutawahidiina bi tawxiidi wal mutaabidiina bil ibaadati wal awliyaau bil wilaayati wal ambiyaau bin nubuwati wal mursaliina bir risaalati. laa ilaaha illallaah. ca aalami arwaax ca aalami arwaax فكل جنس يستأنس بجنسه ويلحق ممن يليه في مقامه ومن هنا تفهم معنى قول شيخ زروق الاعتقاد أصل كل خير وقال القصيري رضي الله عنه الاعتقاد ولاية maanaam xam nga nooy déggee mooy cër bu nit am tey démb la la ko yàlla jox démb la ko yàlla jox mais keroog bi ruuxi te teewee kenn waxul kenn waxul yàllaa woo rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko ëllëg dinaa woote soo wuyuwul nag kenn du wuyu. kenn du wuyu. sallallahu alayhi wa sallam. kenn du wuyu. kenn du wuyu. tey moom la alxaaj Mouhamadul Mansour nii wa awwalu man labbaa. alastu. alastu bi rabbikum. tey hiya ruuxu. wa rahmaanu. Mm-hmm. kaana munaajiya. mu ne Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa awwalu man labbaa mooy njëlbéenu ko njëkk a wuyu. alastu bi rabbikum keroog ba yàlla ne ndax du ma seen borom. ndax du ma seen borom. tey hiya moom rasulullah ak ruuxu mooy leer ga mooy leer ga mooy ruux ga wa rahmaanu te mbir moom yàlla mbir moom yàlla waaw xaal la wal xaal wa tamyiizu man subaani ala ixtilaafi lwadci walbaani suma kilaa nawayni jaa fadluhu munakkaran baada tamaami jumla lakin ida nazarta fi ismi lxaali wajadtahu istaqa min alxaali war mbir moom yàlla xaal la moom yàlla xaal la kaana nekk na moom yàlla hmm. munaajiyaa di aji déeyanteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàgg na am kon ca xaalimu arwaax ba tey nga ne ca xaalimu arwaax ruux yëpp yàlla teg lu wéy njool yàlla ni alastu bi rabbikum ana kanay seen boroom sa waaj daa bëri kersa sallallahu alayhi dafa dafa dafa jekku kaw ba noppi taamu suuf waaw ndeysaan kaw ba noppi taamu suuf taamu suuf sallallahu alayhi wa sallam mooy kilifa yépp moo leen mooy seen kilifa mhm. waaye moo leen gën a oyof moo leen gën a oyof ak kilifa goo mën a xalaat nag laa wax ci àddina Seydina Muhammad ay sa kilifa dëgg la fu sa xel dem ak koo mën a xalaat la tàmbalee ca maam aadama ba keroog yàlla wul bëftu bi mooy sa kilifa moom rasulullah mais moo gën a baax ñëpp gën a yiw ñëpp gën a tedd ñëpp gën a sell ñëpp gor ñi moo leen gën di gor moom rasulullah sallallahu la wa sallam war cheikhul xadim ne insaan al kaamil boo ko bëggee xam sama waa ji sallallahu alayhi wa sallam lu ni sëriñ bamba mu ni wa huwa akmalul wara akmalul wara xalqan wa xulqan zahra cheikhul xadim ne wa mislu wa mislu xattu lam yura wa lan yura fi chémi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi sëriñ Saaliw ne wa huwa moom rasulullahi akmalul waraa moo gën a mat ci mbindee fii xalxan ci mbind mm-hmm. Cheikhul Xadim nee moo gën a mat li ba na na na mbind ma jekkee jikko jaa ko dàq waxul xan ak jikko jikko mu ni Zahra Cheikhul Xadim ne ku mel ni Sidina bët dootu ko gis dañuy wa mis lu mukk lam yuraa ba noppi ne walan walan du benn du benn lam ak lan. du benn du benn lan a gën a fort. lan a gën a fort arab bu la waxee ni Abdou Lahad aw doom may cent franc. Mhm. nga ne ma mayu ma la. Mhm. bu subaa nga may ma lu ko ëpp. waaw lama ngoog lama ngoog. man la Abdou may ma nga ne ma billahi mhm. wallahi tallahi du ma la may te du la mës a may. du ma la mës a may mooy lan mooy lan. lam xarfu nafin wa jazmin. wa qalbil mudaari'i maadiyan lan nag ci grammaire arab lan. xarfu nafin wa nasbin. wa istibaalin wa ta'yidin mooy la yàlla waxoon yonent yàlla Moussa. waaw lan tere nii lan tere nii. doo ma gis doo ma gis cey. yàlla ni. Mm-hmm. ndax doo seen borom ñoom maa kenn tekk yàlla ni alastu bi rabbikum boobu sekk rek wax yàlla tëj na ko. Mm-hmm. parce que boobu kenn mënu alastu la yàlla alastu ndax. ndax ndax ndax boo nee waaw. waaw bu la neexee nga ne ko waaw doo sunu dëgg la. ne ko déedéet. mooy déedéet weddi nga. boo nee waaw waaw loo ci jublu. waaw nga loo ci jublu. yàlla alastu bi rabbikum ndax du ma seen borom. kenn mënul tontu ku dul rasulullah. xam nga lu tontu. Hmm. dañu ko balee. balee. ah ko xaaloo. waaw balee xaaloo kon wax lim jooju danoo waxaaleel. waaw dañoo waxaaleel. xaaloo balee. tey wax waxaaleel nu. waaw ña ruux yi nag door a wax balee. balee balee balee balee kon ci leerug Seydina Muhammad ca la ñu tontoo keroog. tey waaye foofa. kóllëre ga yàlla diggante woon ak gaa yi mhm. am na ñoo xam ne téye nañu ko mhm. waaye yàlla nee na am na ñoo xam ne fecc nañ sama kóllëre ak ñoom parce que booba ki ma leen joxoñ mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais bi ñëwee ci àddina am na ñu ko fecc waaw bañ ko contre ko ñàkk koo topp ra yàlla ni minal muminina rijalun mhm. sadaqu maa ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila wallahi sadaqallahu alazim ñi fecc kóllëre yàlla nee na hmm.